ñëpp moytu parce que xamuñu kan moo yor feebar bi ak ku yorul feebar bi fi mu toll nii surtout suñu réew mi ñëpp moytu mooy lan na ñëpp ñaaw njort ñëpp ñaaw njort mooy nan sol masque euh, buñ solee masque euh, nanuy respecté tamit euh, di raxasu parce que ma mën nga sëqat laal si kanam wala mën nga am microbe bi sa si sa gémmiñ wala feneen kooku bu solul masque bu ko laalee feneen man na man na tasaare feebar bi donc ñuy ñaaw njot toujours di raxasu lu mu gën a bëree bari bu nu amul temps raxasu ñu jël gel gel hydroalcoolique bi ñu koy def suñu poche wala boog mu mu ñuy jege daal ba nga xam ni euh, nañ koy laal mag ñi nag ñaari am na ci ñu bari ñoo xam ne génnuñ seen kër sax donc xale yi ñoo leen koy indil maanaam ñeneen ñi waa kër gi ñoom ñooy ñoom ñooy génn ci biti ñoo indil leen feebar bi léegi kon ci kër aar mag ñi mag ñi fañ a nekk fi nekk ci biir kër gi kenn bañ a ñëw lal leen wala di di leen euh, sonal te fekk ne yow bala ngay dugg ci kër gi raxasu woow wala bokk euh, boo raxasul tamit laaloo gel te it booy ñëw si ñoom tamit na nga sol masque teyit mag ñi tamit nañ sol seen masque donc mag ñi nañuy sol seen masque nañuy raxasu nan tamit moytu génn bu bari bi te amul njariñ ñi siy génn daal nan génn ci farata maanaam ku am rendez-vous wala koo xam ni faw nga dem foo xam ni il faut nga dem fa euh, bu boobaa nga dem ci mm, ci ci farata boobu lu dul farata daal mag ñi buñ génn beneen aar bi tamit loolu mooy li nga xam ni moom la ñuy wax ñëpp mais ñu gën a insister ci mag ñi ba pare tamit aar leen parce que ñoom ñoom ñu si bari génnuñu mais ñun ñooy génn ñeneen ñi ñooy génn léegi beneen côté bi tamit mooy naka la ñuy fexe ba système immunitaire boobu maanaam li leen di aar ñoom seen bopp mu gën a am doole loolu lekk bi bokk na donc il faut que euh, duñ ci tayal di wax alimentation équilibrée ay régime yoo xam ni euh, yu xamul euh, ni soit mag famille bi ñoo wala docteur moo ko comme yenn kër da gis mag bi ñu ne ah, bu alors que moom bu ko lekkee guddi dara du ko si jot dara du ko si fekk dañuy xool ku nekk li nga ku nekk li nga xamni boko lekke di nga dina res normalement nga xamni li baxna ci yow boko lekke resul nga xamni li disna ci yow benen yoon nga jël lu gëna a donc ñu bañ di euh, di restreindre manam di wax mag ñi li lekk li bu def li bu def li ba pare tamit euh, ñu yëngatu nit ki bu yëngatu dina préserve dina euh, dina sàmm lu bari ci euh muscle yi duñu euh du yaram bi maanaam yaram bi ni muy fonctionner dina gën di euh, di gën di baax en quelque sorte maanaam daal euh, ay valeur activité physique euh, li li baax ci activité physique xajul fii pour ñu wax ko mais ñu leen ñu leen di wax daal ñu yëngatu yëngatu boobu mën na nekk ci kër gi hmm? même actuellement nii mag ñi génnuñu mais da leen di conseil toujours kër gi même boo amee fukki mètre mën nga faa doxantu aller retour aller retour ba nga xam ni yë yëngati seen yaram tàng na nga door donc yëngatu bi ci la alimentation équilibrée ci la maanaam bàyyi ay régime yoo xam ni amul njariñ te it lekk bi mu am ay lépp am ci maanaam mu am ay légumes mu am ay fruits parce que euh, yi aar nit ki vitamines yeeg euh, sel minéraux yi foofu la nekk ci légumes yi ak vitamines yi léegi tamit bu nu fàttee euh, jën yi ak yàpp yi ak lépp lu nuroog moom maanaam ay nen ak yooyu tamit dina indi ay protéines donc alimentation équilibrée di tamit ndox bu doy ñett ñetteel bi mooy euh, mag bu ci am feebar maladie chronique ñu fexe ba maladie chronique boobu ñu koy suivre ba mu stable maanaam ku feebar faju ku fajal ku feebar maladie boo xam ni yëgoo dara sa yaram mais ngay jël say garab di dem say rendez-vous jamono bii nag dem rendez-vous peut-être que jafe na waaye mm, bu dee am nga euh, mag bi am na téléphone docteur ba walla mu yónnee fa laajte nax wane ordonnance am laaj ndax ordonnance bi da koy renouveler wala déet lan la ciy renouveler lan la ciy bàyyi lan la ci changer wala lu mu ci dul changer donc bañ a toog fële rek ni man euh, épidémie bi am na fi ci dëkk bi feebar bi am na fi du ma génn du ma dem fenn du ma tamit faju sama feebar bi nga xam ni moom laa doon faju ay ati ati at donc maladie chronique yi il faut que ñu faj leen ñu stable ñu stable parce que bu ñu stable pour ñu maanaam bu fekkente ni lépp jaar na yoon ci feebar boobu nga xam ni mi ngi nekkoon ci nit ki mais lu yëngal feebar bi du gaaw mais par contre bu dee feebar boo xam ni euh, faj bi demawul noonu euh, bu dee par exemple diabète boo xam ni équilibré wul mais lu lu ñëw lu ne rek nit ki day soj sax diabète bi déséquilibré waaw ah, affaire feebar bu ndaw day ñëw rek déséquilibré kii alors que boo xam ni feebar boo xam ni c'était bien équilibré du gaaw euh, déséquilibré maanaam du gaaw a euh, daaneel nit ki du duñ ko gaaw a daaneel ci feebar ba nga xam ni nga fa woon depuis longtemps ba pare di équilibré wu. donc daal ñuy suivre seen i euh, consignes en fait di dem gis seen seen médecin mu leen di xoolal fan la maladie chronique ba toll maanaam ki am tension ñuy xool ndax tension bi amul ay complication ki am diabète ndax amul ay complication ki am maladie neurologique ah quelque soit maladie neurologique bi maanaam ci nerf yi kooku tamit ñu fexe ba nga xam ni lépp euh, jaar na yoon bu boobaa je pense que du am euh, mag bi dina am déjà lu ko sécuriser ci wàllu ci kër gi ci wàllu wér yarabam ci biir dina euh, booster maanaam dina renforcer dina yokk xarañteefu système immunitaire maanaam li koy li koy aar ba pare tamit wi bi nga xam ne mënoon na juddu ci ay feebar maladie tamit eh, mën na ñàkk parce que bu fekkente ni ñu ngi koy suivre normalement maanaam di ko seet muy seet yaramam di jël ay garabam normal tamit boobaa loolu mën na ko mën na ko aar